<laughs> dégg nga loolu <laughs> waaw <laughs> président bu ñu bu ñu box nag waaw ñu rek ñu émission nag waaw waaw ñu rek ñu émission nag macha allah nii bul bul bul box bul box bul macha allah nga wax ko nga ne léegi kay kooku soxla woon la ndax voix bi. ñu gis macha allah dañu ba sama cat sama catu moroom euh, tey président bu waxee rek. ku ko déglu sax da ngay kontaan moom mu bañ a def dara tey voix boobu yow yaa ko liggéey ba am voix boobu tey wala da nga yow daal noonu noonu daal la yàlla bindee daal ndax gis nañ ay temps sax yaa ngi fi doon publicité benn duñ ko tudd benn safal boo xam ne loolu yàgg na sa voix moo doon mujj mais gars yi dañ ci doon bàyyi xel ah nooyu waa bi ñuy gën a nekk ndaw loolu noonu ñu ngi koy rappelé wu tey jii nii waa benn safal duñ ko tudd duñ ko publicité na waaw <laughs> ah, kay léegi tey président moom yàlla moo ko ko may ba voix bi wala da koo defar rek bon xam nga euh, dañ may ci li nii sama maam xajal fay di doom ci amagor songo coow ma toroon gaynde ga ca dafa amoon xadaar am kaddu su ma wax fu waaye tollu de ko lu mu ne nii la rek noona la kenn du ci teg baat gaynde piir la woon sama baay bi ma jur di mbay xajal yaay yàlla may ko ci kàddu dafa amoon voix moom tamit bon samay frères yi am nañu itam voix donc euh, sama yenn tonton côté paternel également ba tax na bii nga xamante ni euh, nit ñaa may laaj foo jël sa voix dama ne sûrement foofu la mais xam nga bi ma gën a nekk ndaw je pense que loolu bokk na ci sax gën a retravailler sama voix dama nekk ndaw amoon fees chaque fois ñu daan demee tool su ñun dañ daan bay ñun bu bu euh, dugub ji mosaane meññ def loolu ñuy wax pëddal <laughs> donc xaw xamuloo yooyu waaw alors ñun dañ daan sa bopp dafa def genre euh, pergola li ñuy wax ay mbaax noonu da nga daan yéeg ay comme comme euh, kii la ay genre escalier en bant yooyu nga yéeg ci kaw boo yéegee xam nga da tiim kii bi euh, dugub bi ngay tiim bon sur une très longue vue étendue de mille ko defee nag ñun su nañ naan dàq picc yi picc yi su mosaan def naax nuage d'oiseaux ñëw di tegu ci kaw euh, dugub ji pour lekk leen ñun ñu leen di dàq waaw te booy dàq picc dégg nga ma xam nga doo def nii da ngay wax da ngay addu Alors, le travail vocal commence, mon travail vocal commence là. Ah, oh, ya. Ah, oh, defee noonu rek picc yi bu ñu waroon a dal ci ci ci mil bi rek dañuy dem seen yoon alors ça on l'a fait à longueur de saison on l'a fait euh, donc euh, plusieurs années plusieurs années apparemment ça peut-être contribué à ce qui a renforcé un peu euh, mes capacités vocales mais teewul bi ma nekkee école itam j'avais un professeur de voix il s'appelait euh, euh, euh, j'avais deux professeurs de voix kenn ki c'était euh, Jean-Claude Sergent yàlla da technique vocale mu la doon toutes les techniques vocales moom ak ku ñuy wax Richard Gaillan Richard Gaillan c'était également un, pro, un chanteur d'opéra voilà un grand chanteur d'opéra benn tubaab on chantait au piano comme piano blé comme piano bële dafa naan touché touche yi dégg nga ma voilà do ré i donc voilà on a travaillé les voix comme ça donc mais euh, aussi euh, bon fekk na nag am na ay dispositions am na ay dispositions vocales yu fa toog voilà loolu donc ñu boole ko nag daxañ ko yeneen affaire yi j'aimais bien la poésie j'aimais bien quand je suis sur euh, la scène du théâtre je criais la Dior <laughs> danan ñëw ñëwaguñ de yeeg seeguñu waaye loolu nii li nga wax nii day wane ne kon mhm. artiste bi nekk ci saalam des fois euh, ñu defloo ko ko artiste duñ nangooti defar voix ndax des fois ñu ne la del wax ah di ko kon nga ne loolu daa ñaax fayda comme yow léegi war gën nga leen leeral ne am na solo ci sa saal ngay def yooyu di yuuxu na gis nañ ñi nga doon daaxee picc bi des ñu def loo ko nit ne la toppandool yenn mala yi gaa yi di ko di ko di ko bañ di ko bañ ci seen saal yi naan di tàyyeel mais nekkate loolu am na solo naa la xamal benn affaire de secret bi mi ngi fii comprends Ablaye Wade le président de la République Ablaye Wade di ko ñaanal yal na ko yàlla may fan yi gudd euh, ku ma bëgg ngi noonu yu jëkki-jëkki woo ma téléphone paap foo ne ma ne sama kër jaaral ma jaar dem palais wala foo toll ci hymne de la renaissance bi mbaat mi ngi avancé man la ko confié woon mu ne ma teg ci sa voix de la renaissance africaine man man la maa ngi yëpp fii boo xoolee si kii bi direction artistique Pape Faye dañaan toog génn ay téere ne mooy voilà c'est pour la prise de parole en public qu'on va travailler la voix ku xam ak a xam Ablaye Wade ak a xam luy voix ak a luy wax am nay téere bon du ma cité tur nag léegi mu tel kilifa ak tel kilifa ak tel ministre waaw wax naa leen sa wax daañu la woo pour ngeen liggéey da defar voix et eh, ministre mais xam nga doo wax ba jii may wax aujourd'hui ma lay wax ni suba leen di la am na ku mu war a jël koo xam ne dama war dem pour liggéey ak moom ci voix ak ci prise de parole public xam nga bon euh, lépp la mënu mën a limal li ma am ci orateur donc mbirum voix dafa am solo ci doom aadama surtout booy def communication ni ñu war a dégg la ngay wax mu leer si seen nopp dafa solo daal bu àddoo kon kàddoom kenn waru koo laaj dafa war a leer nañ euh, nga jàng nag ba génn école des arts oui institut des arts wala conservatoire d'art dramatique tey jii nii am na yenn ndaw ñoo xam ne jaaruñu fa mhm. ndax yéen pare ngeen pour former ñooñu man loolu lay wër loolu lay wër y un mois laa jógee Ziguinchor invité par la directrice de l'Alliance culturelle de l'Alliance franco-sénégalaise de Ziguinchor, qui est la présidente du réseau des alliances au Sénégal. defal formation aux enseignants lëkkaloo ci ak ñi xam ne c'est l'inspecteur d'académie l'inspection d'académie de de euh, de Ziguinchor ñu def euh, ay cinq jours de formation intense sur la formation technique théâtrale jeu d'acteur voix parce que man bi may bi may nekk cours Sainte-Marie de Anne enseignant yu bëri yu nekk foofule dégg nga dama leen daan former ci comment compter comment compter en salle de classe dama naan dugg ci biir classe ak ñoom di compte di raconter et histoire ñuy comprendre ñu gis j'étais à la fois metteur en scène comédien conteur et tout parce que boo bëggee ñu xam da nga leen di wan fànn yooyu yëpp loolu moom meen ma am possibilité daan dem dans les pays étrangers ku mel ni Suisse Belgique en France di def ay ay ay série de contes en art bon euh, des récits des récits qu'on les arts def naa ko fu nekk donc euh, loolu yàlla dogal na ba tey mi ngi fii yokku na sax bon ba ci écoles yi man aujourd'hui j'enseigne dans les écoles universitaires privé surtout amul école bu ma demul. waaw mais nag ñi nga xam ne dañoo bootu ci yéen tey gis nañ tey théâtre macha allah dafa jur moom moom nee nañ ëmbul daa xëy wasin foo ko foo tourné am na turub euh, da ngay dajeeg nit sax xam naa pare saa dina la nuyu ne la grand pape man euh, comédien laa nga naan kii moom <laughs> fan la nekk xam naa loolu moom leer na ma moom. léegi ñooñu nag ñooñu. tey da ngay gis ñu def seen i troupe di jouer loo xamante ni tey bu ñu defee théâtre sur scène rek boo leen seetaanee bëgg gaañu. léegi yooyu tamit yéen seen tur da ciy nekk ñooñu ndax yéen ñu ngi leen di jël di leen former. waaw ñu ngi former ñooñu mais xam nga ñun euh, nit ki su amee volonte former wu jàng boo ñëwee ci ñun Dakar wala nga dem Pikine Arco Pikine wala nga dem bu Guédiawaye ah wala foo mun dem Arco Louga y a des académies ñu former la foo dem da d'ailleurs sax incha allahu rabi on va démarrer euh, jamono yi di ñëw la xam naa bu koor gi passé lay doon. et une série de formations avec ce que nous appelons Arcots Academy Arcots Academy pour jàppale ñi nga xam ne ñoo nekk dans les régions defoon nañu ko il y a quatre ans ca gannaaw ya nga six ans il y a cinq six ans cinq ans ca gannaaw defoon nañu ko dem les dem dans les régions former gars ñi mais am na ay partenaires yoo xamante ne xëy na ñu ngi leen di ñu ngi ñu ngi jokk ak ñoom bu ñu taxawee ne ñu temps la ñu mën a teg à votre disposition pour former les jeunes on va mais du tee ba aujourd'hui on est en train de les former toujours ah ñun ba léegi ñu ngi former foo ci dem au niveau des ARCO les gens sont en train de former ah bon ku ñu solliciter ñu euh, euh, euh, ñu jàppale la ñi nga xam ne également ni ñu koy waxee léegi c'est vrai que am na ñoo xam ne ñu ngi ci troupe bi nekk ay jeune acteurs dégg nga wala c'est des jeunes metteurs en scène am na ñoo xam ne sax seen njàng ñoragul ils se disent wala ils se disent en scène. da nga am humilité bu toll ni que da ngay jàngiwaat man mii xam ne def naa ci lu ne ci théâtre te de série yeeg yooyu le ba tey jii man damay jàng parce que boo tegee sa bopp ki ne yow yëg si nga nga ne doo bouger yëg si nga nit ñi bala fa parce que le monde change le monde bouge y a parce que théâtre bi dootul rek yëg yëg sur seen di daw di ñëwaat même sur les nouvelles méthodes de technologie da nga ci jàngale théâtre bi affaire dafa changé dafa changé kon nag na ngi dem di jàng di yokk ji xam-xam je crois que tout cas à aider les gens leer na yow nag euh, bi nga jógee ci yooyu yëpp nag euh, théâtre sur scène def nga ko ba sonn de daan joué ay rôle buur ñàngal affaire yooyu noonu nga dikkalaat ñu ci théâtre sur scène lan lay da jar xam nga théâtre sur scène euh, c'est pour moi euh, mooy mooy première force de développement personnel maanaam yokk wut noo yokke sa bopp te da lay yokk ci idée ci xam-xam ci waxin ci doxin c'est la vérité parce que booy def théâtre am na lu ñu lay jàngal ci nooy taxawee nooy waxe ci mbooloo nooy xoolee nooy respirer ah théâtre moo la ko mun a may mais boo deful seen doo ko mun il faut nga daw sur la scène même ñi nga xam ne c'est pas des comédiens c'est les mannequins également ñoom itam aussi ce qu'ils font là c'est un développement euh, corporel ci xoolee nag ci doxi nag comment redresser euh, la colonne vertébrale ba nga mën a taxaw si gën ñu xool la am lu ñu yëg ci yow waaw euh, voilà. Euh, tu donnes rien aux gens ça n'a pas de sens donc tey jii ci li ñu gën di yëngatu aujourd'hui waaw euh, c'est vrai que j'ai j'ai j'ai j'ai j'ai tous les grands rôles de ma vie Lat Dior hmm? euh, Damel le prince Yérim Mbagnick Euh, Thierno Souleymane Baal rôle yu mag yi ah euh, Biram euh, mooy wan borom këru Yacine boobu joué naa rôle boobu le itam waaw le le choix de Major Sale Bigué rôle yi gën a metti te marqué histoire réew mi waaw ci fànn woowule j'ai porté sa waaw j'ai porté ça bu dee ñi nga xam ne dañuy yëngatu ci kilifa wàllu wàllu diine du ma jouer seen rôle parce que fois am na lu la ko dul may mais mën naa utiliser euh, sama sama xarañte ci wàllu taalif mbind tagg ci Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul def naa ko ñaat yoon ku ko dégg ñi ko dégg ñëpp dañoo daanu parce que lañ ca wax la dama gëm loolu euh, def naa ci lu bari El Hadji Malick Sy rabitala anhu boo demee foo chaque jour ñu teg ko asfia ak walla euh, euh, yenn télé yi religieuse ba bi mujj kii la Seydina Limaamu Laay al waaw te dama ci dem ba jeex maa koy bind maa koy wax te li ma ci wax lépp noonu la def ay vidéo euh, tourné ko c'est ça circule dans les réseaux sociaux même su ma ko joué wul sax mu nga mel ni maa ngi ko joué